ngi la fekk taal bi ndox mi bari na lool. torop torop torop yàqule na ñeenti keesu banaana fii yëpp daataa tali bi ñoo ci xëy fajar ba léegi moo tax nit ñi mañ fee jaar ñoo ko doon ŋacc boolee ŋacc suñu place ŋacc fii hmm. te xool mètre dix mille lañ ñu koy jaay te dañoo ñëw di daan suñu doole dix mille lañ leen ko luyee luyee fii ba pour màggal gi jeex. 10 000 ba màggal gi jeex. waaw courant 3 000. courant 3 000. waaw ba màggal gi jeex. waaw. mais da ngeen yàqu. meetar meetar yàqule nañ lu bari. Oh, banaana. bu tooyee ndox taw. day yàqu banaana daa seer. am na ci pom yoo xam ne tamit day lakk sooba léegi ñoo ngi sànni ay pom ndoxum taw mais koy la xam nga ndoxum taw moom mun a ànd ak dara daa am asib dafa am asib xool yii yëpp ay orange ay orange xool geesul yii yëpp ak yéen sànni ndax bañ mu xeeñ fi ndax bañ mu xeeñ fi soon nañ trop waaye nag sëñ Touba jaral nañu ko xëy na nag dañoo ñëw di daan ci doole waaye ay murit piir lañ sadiq waaye nag ginnaaw ñu ñëpp mënu ñoo ñëw màggal ñii dinañ jaay ñi nga xam ne bu ñëwee bëgg ay charité bëgg lu ñu yóbbu seeni i gan gis nga ay fruits la ñuy jaay ay raisin banana pom orange kon ay koko yii la ñuy mujjee daaj parce que charité ni ñi la. par mètre dix mille bëri na de yow ñaata mètre nga jël nii. 4 mètres 40 mille waaw loolu takku na. 40 mille si dëkkub sëñ Bamba bii loolu takku moo moo fi am de. mënoon na nekk 1000 francs mbaa 2000. moo fi am de. kii 5000 francs koy joxe mètre 5000 francs. waaw man sama sama palaas dañ ko mujjee nangu waaw. place yu gàtt yee. 5000 ñun ñii 10 000. waaw xewul rek kii moom it ki ko doon jox sax ren war moo ngi nii jaayagul. dama jox place maa ngi ñëw di jaay fii. ma ñëw am ku ko jox trente mille mu jox ko ko ma nee baax ne ba fii laaw ma foo ma jox trente mille moom la jox moom bi man maa nga doon fay dix mille. fii def naa fi juróom-ñetti at. Mm-hmm. saa yu ma dikkee daf may jox place. léegi sa sa sa place léegi fan nga ko def. da ngay ah, jaay bis damay wër damay wër di ambala. amatuma ñaata nga doon fay. ah dix mille francs. léegi malien bi ñëw jox ko trente mille. mu jox mu jox ko place bi waaw. Ah. ci dëkku ah. sëñ Bamba ñu ni sëñ Bamba. day na woon ma fee daan lan léegi dañ ko def magasin. fee dootu ma la ko jox yow mm. waaye defuñu xéewal yi sëñ Bamba yi dañ koy mbubboo nag amul woon gën yow kii def juróom-ñetti at. gan gu bees ñëw. nga nga jox ko ko ti mu jógee biti réew nag ah, waaw waaw ti man maa ngi jógee ba Thiès de ñëw bi may ñëw dama koo woo mu ma ñëwal ma ñëw maa ma xaar xaar ba ma samp saay ban malien bi ñëw di wax ak moom ma gis malien bi jox ko trente mille mu ma xaar daa wutal place ma toog ba léegi joxuma place léegi damay gàddu samay bagage di wër waaw. lu ma sëñ Bamba. Hmm. ab taalibe fi war a gën a. lépp dana fi oyof sax. oyof waaye ab étranger. Mm. gën ñu fee féex ñun. kii nga xam liggéey na fa lu mat juróom at. ñu jëlee ko fa tey ndax ab étranger ndax ñeenti junni yu ca mm. tege. ñaaw na trop. ñaaw na trop foo mën teg ba sëñ bi yëg ko. baa ñi ko jege yëg ko. Mm. teg ko. moom moo lekk ak sëñ Bamba. Ah, Mouhamadou borom dëkk bi laa ko booleel. barke Ahmadou Bamba borom dëkk bi laa ko booleel. fii lay maa ngi nii toog jaayuma defuma dara. te damaa paas ba ñëw yëkkat sama xaalis jox ko mun ma noonu xaaral xaaral malien bi ñëw jox ko ma gis ko mu ne malien bi moo la fi jiitu ma man juróomi ñetti at maa yor place bi waaw foofu sama place la waaw ah, damaa war ko ñii nii nii samp ba ndam me ko buddi ma buddi ko waaw ah, buddi ko xool na mu daaneel sama ba moto baa ngi ne lamp yaa yëpp toj ah, la sànni sa moto nii ci biir man juróomi ñetti at fi mun ma danga maa woo ma ne ko woo naa sarak sarak nga ma booleel yow yoratoo pala ma woo sarak ji sarak bi ma man ma koo jot ma ñëw dimanche mu ama xaaral xaaral ba bambara bi ñëw. ma bi jigéen bambara bi jigéen la. mu daal ko jox léegi xool sama bagage. ay sër lay jaay ay sër ak yoon lay daal man ay lay jaay ak koko. fii nag aw ma fu ma laal ma bàyyi koko ji daal yaa ngi ne damay jël bàyyi ko ak borom dëkk bi. bàyyi naa ko borom dëkk bi dina ko saafara. bàyyi ko borom dëkk bi ak Sénégal ñun di ko saafara. jërëjëfati jërëjëfati